muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam mbokk yi ñoo deglu, ak ñiy dégloo ñu ngi dellu si waat ak yéen ci suñu programme minbarul islam wolof ci programme bi nga xam ne ñu ngi cee waxee néegu sëy ak lépp loo xam ne mu ngi aju ci néeg boobu ñu ngi gërëm mbokk yi di gërëm seetaankat yi ak déglukat yi ak ñi nga programme bi rawatina ki nga xam ne mu ngi doon laajte ne moom sax dafa nekk koo xam ne nekkul muslim mu ne chrétien la waaye dafa séyoon nag muslim jëkkër ja gaañu mu ne ndax dina jàpp idda wala du jàpp idda ak bu fekkee dafay jàpp idda naka la koy jàppee ci ban diine la koy jàppee tontu woon nañ ko keroog ba mu sëkk dafa am lum fa fàttali rek waaye keroog waxoot nañ ko ne dafay war a jàpp idda ne ko la koy jàppee itam mooy daf koy jàppee ni ko muslim yi di ko jàppee muslim yi wala ay wujaam noonu wala niñ koy jàppee bu fekkee amul wujee itam ni ñooñu ni ñooy jàppee idda ci jàpp idda boobu mooy ténje moom itam noonu la koy defee rek xam naa nag mu ne ñun waxoon nañ ko ne moom dafa war a jàpp edda ca dina dafa war a jàpp edda ba moom sax mu ngay jàpp edda waaye itam mu ne buñ ko leeraloon naka la ñuy jàppee idda nag ci islaam mu ne loola moo desoon wala loolu daal feddal ñu ne suñ ko ca aadoon itam wala suñ ko ca yokkoon itam mu ne loola dina ko gën a noppal dina ko gën a euh, wan daal yoon bi nga xam ne ci loolu war a jaar waaw dëgg la wax na dëgg ñun dañ faa tere waaye comme xam nañ ne itam moom mu ngi dugg ci islaam bees bay laajte sax dina ténjeek du ténje léegi buñ ko xamalee ne dafay ténj itam waroon nañ koo waxal foofu sax ne waaw naka lay war a ténjee nag mu mel ni ténj ci islaam rek mooy comme niñ koy defee rek bari na aada yu bari yoo xam ne nag nekk na ca duul islaam waaye am na ci yoo xam ne itam bu bu rafetee ca léegi ñaawalut wala muy indi dara loo xam ne lu luy génn diini la eh, tam ca yàqalul la sa islaam itam daganalul lu lu xaraam wala muy xaraamal lu dagan su boobaa itam loolu te mun nga ko defee comme aada bi nga xam ni nga fekk nit ñi di ko defee rek aada boo ca xam ne loo ca xam ne bonul yàqut daganalul lu xaraam wala muy xaraamal lu dagan su boobaa aada boobu itam mun na caa nekk léegi waaye li ci ëpp nag ay aadaak kii rek lañoo def mu mel ni ténj ci islaam liñ ko wax rek mooy ñaawlu ak beesal sa pas-pas ci diine bii nga nekk wala ci li nga xam ne moom la la yàlla santa ca mooy li nga war a def sa digganteek moom ak li nga war a def digganteeg moom nit yi foofu nag ngay gën a feddali yow sa gëm-gëm ci yàlla ca ñoom chrétien yi nga xam ne léegi Eh, am nañ gëm nyom christian kon nyom am nañ gëm gëm bi nga xam mom moom la muslim yi am gëm nañ yàlla am nañ téere bon foofu ñun ñëpp fa em léegi sax loolu moo tax mu dagan ci muslim bi borom mu dem mun a sëy christian parce que christian bi tam lim gëm ne yàlla mooy boromam ne yàlla kenn la ne nit ñi dinañ dee dinañ dekki dinañ dem ci yàlla dina leen laaj àjjana ak safara am benn nga dem ci àjjana benn nga dem ci safara ci jëf yu baax ya moo koy tegtale jëf yu bon ya mooy tegtale itam fa nga fa neen fi nga jëm loolu yëpp ñun ñoo ca em bu ko defee nag sa digganteeg yàlla boobu nga xam ne mu nga fa moom bi ngay séye kii ca nekkuloo muslim itam yow pas-pas boobu mu ngi ci yow boobu nag ngay gën a beesalaat beesal ko sa diggante yàlla di ñaawlu loo xam ne soxlaatuloo dara lu rafet ci àdduna pour sa partenaire bi nga xam ne moom nga nekkaloon moom dem na jiitu na la sax fa foofa yow nag fi nekk nii sox àdduna soxlawuloo ci dara da ngay dëddu àdduna wane ak du ay dëddu àdduna boo xam ne am na yu daganoon ci yow sax léegi def léegi faaleetuloo ko wala bulguloo koo defet itam yooyu bokk na ci demee ni taar taarlu di sol sol lu rafet di sol kii ak yi demee noonu yooyu sax yow soxlaatuloo ko ci fatara bi nga xam ne wala ci période bi nga xam ne sa partenaire bi dem na mooy sa jëkkër yow nga war a toog nag ca xam na di nga ko fekki su ko defee moo tax amul yére nag yoo xam ne léegi yii nii moom lañu war a sol pour ténjee ko ni ki nga xam ne la ko aada bay defee dem xotti leen yërëm ñu ne jigéen yi ki gaañu sax ñoom lañ di sant pour ñu dem xottil ko yére yére yooyu ñu ñëw bés ñu ne bés boobu ñoo leen di solal ak ñoo leen di ñoo leen di solal loola yëpp bu ca mu nee am itam sang moom daganul ci benn nit ñuy koy sang keneen di ko sang ndax loola bala koon a balañ ko woon di def mooy ba muy dugg néegu sëy sax waroon nañ ko wan baax bu ba xamal ko itam sangu bi nga xam ne moom la war a sangoo ci affaire sëy bi nga xam ne loolu xam na ko moo tax bés bi nga xam ne jëkkër ja gaañu na ba muy gilee booba fekk ne loolu passé na ko sax waaye bu fekkee lu fu ñu fa xamutoon itam nañ ko xamal naka lay sangu wala dafa nga xamal ne dafay sangu sangu seet ba pare mu yéene yéene nag dafay fas ci xolam rek ne léegi man maa ngi bugg a def jaamu yàlla bi nga xam ne sant nañ ma ko ca mooy téeñ ji suma jëkkër loola gaay dinaa leen koy waxal bañ di ma wax ne waaw naka la ñuy dooree naka la ñuy defee ma di leen wan ne léegi su bés bi ngay door mun ngaa le rek nga ñëw rek yow nga dem ñëw iine sa waxtu rek rek di ki kuy armal rek kuy armal mu dem julli ñaari amu dem dal di gile eh, bu fekkee ne ci waxtu julli la mu julli àndale ko julli ga ba pare bu fekkee ne léegi eh, dem na sangu sangu set ba pare jël loolu yëpp dafay feddali ne léegi mu ngi war a commencer rek léegi noonu léegi booy commencé aj itam lañ sant nga def armal boobu armal boobu boo demee bay sangu-sangu boobu wax nañ ne bu fekkee yaa ngi set bu fekkee setuloo sax mun nga ko def naka noonu itam tinji bi itam noonu bu fekkee nga set bu fekkee nga setul itam mun nga sangu sangu boobu ba pare pour éene ci rek léegi pour nga xam ne sa commencement éene léegi moo doon ci lii ak sa commencement commencé liggéey bii moo doon loolu nga sangu sa sangu set ba pare bu fekkee waxtu julli bu fekkee duwoo kuy julli yow setuloo duuloo kuy julli bon nga éene foofu ba éene def jaamu yàlla gi nga xam ne moom la yàlla sant def ko ngir yàlla su fekkee ne koo xam ne yaa ngi julli la nag nga sa kii booba pare bu fekkee ne waxtu dafa jot nga julli sa ñaari raaka bu waxtu jotul kon nga julli sa ñaari raaka naafi la ko ba pare commencé ca sa jaamu yàlla gi nga xam ne moom la la yàlla sant muy ténji bi nga xam ne moom ngay def su fekkee ne nag waxtu julli dafa jotee tam nga julli la koy ba pare daal di yéene foofu waaye foog nga beesal sa yéene daal ak yéene eh, bu wane ne léegi fi nekk ni yow commencé nga jaamu yàlla gii nga xam ne mooy ténji def ko noonu nag ba defee dootoo sol yu rafet yi ni ki ay ceen ak ay lam ak ay kii ak yi demee noonu yooyu yooyu itam rafetu ca du sax ne léegi sharia daf la tere ne loolu loolu boo ko def de waaye léegi rafetu ca parce que daf la ah daf la sant ne nga ñaawlu dëddu àdduna dëddu àdduna nag yooyu bokku ca ku dudd àdduna bokkut ak kuy takk ay lamag ak takk ay jaaroo takk ay eh, takkaay ak yi demee noonu loolu bokkatu ci dëddu àdduna moo tax ñu rafetlu itam pour loolu nga génnee sa yooyu yëpp bi nga xam ne jeex na su fekkee am na yére yu ñu leen di dooleel ne ngeen téye ko ngeen ut seen ngeen sol seen yére yooyu su fekkee ne dafa luñ ne dee tam yére yi nga daan sa nga muur sa awra ba nga xam ne moom la loolu dañ la ko santoon bu njëkk li ci gën a am solo daal mooy ne pas-pas bi nga pas yéene gi nga yéene pour yaa ci jaamu yàlla gii nga xam ne léegi nag dugg nga ko.